dal leen ak jàmm yow a yowoon na fekk mu yow ki sénégalais yi tànn di Bassirou Diomaye fay moom la yéen a kaay xëyee di ko paasante Walf Quotidien mi ko njëkkee la muy laaj mooy ak formation premier gouvernement bi ak li askan wi di ci xaar fan la Diomaye ak Sonko nar a tàmbalee l'observateur mel ni ku koy tontu ni ko emploi des jeunes ak dundu gu seer gi yooyu ay ponk la yoo xam ni fi mu ne nii moom la askan wi xaaree njiit lu yees li di Bassirou Diomaye Faye jox na kàddu ay spécialiste yuy wax yan yoon la président bi war a mën a jaar ngir saafara jàngoro yooyu yëpp laas yéen kaay ni ko jàngoro yooyu éducation bi ci la bokk taxawee bi loolu bokk na ci poŋ yi nga xam ni askan wi ñoo ngi koy xaar moom Bassirou ni mu gañee élection bi ci biir Ndakaaru 24 ab rafal bu mu def ci kaw Benno Bokk Yaakaar ak taxawu Sénégal la ko tuddee ndax nee ci département bu Dakar coalition Diomaye Président am na fi 286 846 voix Amadou Ba am 118 323 voix am 24 306 boo xam ni département bu Pikine Diomaye ma nga te 157 Ba récolté fa 63 436 électeurs Amadou Ba ak enquête yéen kaay moo ngi ci enquête ba gis ni li ko waral bokk na ci li mu défendrul bilan matériel bu Macky Sall bi ci bi mu campagne li taxit mu ni Macky Sall mere Amadou Ba enquête moo ngi koy leeral li leer ba leer mooy Macky Sall dafa trahir APR jàppale Sonko ak Diomaye ci kaw Amadou Ba du samay wax Omar Sow ministre conseiller moo ko wax lu tax Omar Sow nee bu ñu nee suba la élection bi Macky Sall ak Ousmane Sonko gisee nañ nee na it te ndaje mu ni mel Ousmane Sonko sàkku na fa ci Marème Faye Sall ngir mu ñaanal Bassirou Diomaye Faye menacé ay jagañaale la tribune nee nañu it Macky Sall am na meneenum xëy ndax bu paree ci réew mi le avril am na beneen liggéey bu koy xaar ca France ndax mooy envoyé spécial bu Macron ci mission 4P bi di pacte de Paris pour les peuples et la planète njombe am na ci Orabank ubbil libération yéene kaay nee na 400 millions la ñu sàcc ci compte Wave ba ba noppi jël xaalis ba séddale ko ci 14 comptes yu nekk ci banque bi am na fukki nit ak benn yu ñu cay bokk na ci ñoom chef agence Orabank ba ca jam ñaajo teg na leen loxo